soo lu ngeen gëm bay gaaral suñu yónnee sanga soo daan mooy bay looy si suuf day neex naa gàmbo weextal ñu lu weextal jarul basan jarul sijaada boo jógee da ngay rek suuf si wadda nga dem amul benn tilim bu lay topp hmm? agsi nag agsi nañu ci borom ndàmm nag yàlla kenn du ko sosal inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab yàlla kenn du ko sosal wax jàng fii bëgg a yàgg téeméeri at ak ak juróom benn olof ne lu dul dëgg du yàgg waa kon lu fi yàgg nag dëgg la promotion la ñëpp di ko xaar amul yonent bu jaar te bëgg la woo ci dikk ak bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yàgg nag mu judd nag juddu gu judd guddi googu ci la nekk laylatul mawlidu laylatul mawlidi ladi ya rasulullah ku ko sopp defal ni personality حكمه وزيادة yàlla ne wa maa arsalnaaka ilaa rahmatan lil alamin bu wàccee rek suñu yërmande wàcc na waaw du nu bëgg ku lab ba mu yàgg maître nageur bi ni ci wax ci biir ñëw ba si yow boot la fii yow génne la lu tax bu doo bëgg lay lu ci mooy saa yi bul bix sa tey limaami Mamadou Lamine Laay mooy tibbi xuluubina Sëriñ Limaamu Laay mooy saa yi wul safaatul kubra yàlla mooy lan islam waaye lu tax bu dund bët lu tax du bu dund bu këriwu moo tax bu mu juddoo watawaalaat bu siraxawaati watawaalaat bu siraxawaati faal xaat mu saa see dem rek الفاء وكان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله loolu ca kéemaane la waaye dañu nekk ci guddi gi ndëkk ma ca nekk puukaroo ga ca nekk ok jannaatu ju fecc da ngay seet yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ci kaw maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaas basiran wa دور الجن جكنا محمد رسول الله والذين معه أشدهم على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان مؤمن وتوالى leen ma SMS ya wuyilal Mustafa bëgg leen bëgg leen bëgg leen bëgg leen bëgg leen buukarewu leen ki ñu doon xaar juddu na ana kan la juddu muy judd gii tey yàlla baaxee nu nag altineem ja ñëw boole ci tawaale busran hawaale the sun. waaye kon yàlla ñëpp bëgg waay yàlla bu nu merati am de yàlla bu nu merati nee message yaa ngay dem rek waaye nag kéemaan da ko judduwaale moom yonent bi ndax xam nga pale Israaya ñoom ba ko tabaxee bu ñuy tukki du musa daan بابا دال دي داف اي فسير خرب بالكم يا دارو كوكا لا safara yeen doon jaamu fay doon ma ngeen benn bennal ma ko safara fay loo xam ne ñaati junni at génération bu ñëw di xambare ñuy jaamu safara dafay niis na ngir lan lëndëm daw na ndax loolu lépp lëndëm la leer wàcc na mooy ki ne ana min allahi wal muminuuna moo tax borom nekk wa man takun bi rasulillahi nusratu in talxul usdu képp ko gëm na ko rasulullahi boo dajee ak ay gaynde seen li ñuy wax dal gaynde mais boo fa dajee ak ñoom nga dimbali ko rasulullahi ñoom ñëpp dañuy nooy wa man bi rasulillahi nusratu القول انت القول انت القول اسكتي am benn saabu bu ñuy wax safiina ndeysaan dañu jihaadi woon yàlla na too mu réer bu mu réeree muy dox di dox di dox ba xamatul mu jëm bi muy dox ba mu yàgg mu ne xiir lam ca gaynde gaynde gi xiiru ko rek bëgg kaa sonn ko dama bëgg nga xam na ndawal ki yàlla yónni la ndawal ki yàlla yónni la mo ñu yónni gaynde ga dal di dal bi mu dalé mu and ak mom nak mu topp safina rek bu safina doxé bi waré jàdd rek mu risu ka rek mu jadd mu continue mom bu doxé ba mu yàgg mu war jadd mu risu ko mu jadd gaynde gi om ñekkuwaat daw ci ko la naroon a fàdda wa man takun bi rasulillah wa man takun bi rasulillah eh, yal na nu yàlla dimbali ci barkeem yal na nu yàlla dimbali ci barkeem wala na nu yàlla dimbali ci barkeem mu ne ku koy dimbale koo looy ragal lan ngay ragal mooy saydul kaw nay ni sama mooy saydul kaw nay ni hmm. wa saxalay hmm. wal fariqayni hmm. sallab fii ak fa nu jëm ku yóbbu noyu ci moom ku yóbbu dimbali koo ci moom nasifa safina dimbali koo woon ci moom bu mucc ca gay naga waaye noonu dimbali koo faaxala waaw fii xalxin fii xalxin wa fii xuluxin xuluxin ak jikko وتحيا لك وانك لنا خلق عظيم وكله من آه، رسول الله الملتمس مم يدنا خمنا ما يسنا في اكل نجم وطلع ويسنا نجم الجنة يعني دي جبابي سمع مرسل الكامل هو سخلين واو هو طريقين ايه arabin wa min ajami wala boo nga dem ca arab ya bu yóbboo nga génn ca arab ya feneen foo dem koo fa mën a fekk kooku lu mu doon ak nu mu mel nee na ki nga xam ne mooy sangam mooy yonent bi seen maam faaxal na biir yéen na leen fii xalxin fan la leen jiitee dafa la mu leen jiitee baytul maqdis faaxal na biir mooy seen imam faaxal na biir mu jiite leen ñoom ñëpp faaxal na biir noonu la leen tiimee fii ilmin وتحمحم فاق نبينا واو في خلق وفي خلق وإنك لا لا خلق الأرض يلا كتدل يلا ميك بند خمنا لمو بند مو ci gën jikko mu yëkki ko ci kaw yonent yëpp yonent yëpp xam ne seen ab sang di ñëw kenn ku ne jaayante ak moom te yonent bi ji doogul faax nabiina في خلق والله وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم si madinatul munawwara am saaba yu xëy ñëw di ko nuyu si di ko ziyaar si ba ñu ñëwee ñu fekk ku mu tëdd ci basan ñu ëgg si yonent bi jóg ba mu jógee ndeysaan ñu gis nag basan gi marqué ci loxo yi nga gis cere basan yi daal di tax ci yi aka oyofoon xam nga kooku amul bëkk néeg ndax bu doon dafa ñëw am bëkk néeg dina leen téye wax leen ne am nañu lay ziar sang bi mu waajal boppam waaye bu ñu ñëwee dañu dugg ak ci si moom ñu fekk ko ca melakaan woowu ñu ne ko waa sang bi lu ma jot àdduna تحت شجرة ثم راح وتركها dama bëgg wax leen sama diggante ak adduna mu ne mu ngi mel ne rek ku war di dem ba ñëw si taatu garab ko yow ku tedd ki lu tax du ma jooy mu ne ko lu tax ngay jooy mu ne ko xoolal këram gu yërëm te liggéey si yow xoolal ni sa yaram taxe ci basan gi ni mu marqué ci basan gi cere-cere basan gi tax ci say yére tey ngay gën di mu def di xayru xalqillahi rasulillahi alayhi wa sallam booru Xaysar ak Kisra ñu nga ci seen palais ak seen dex ya mu ne ko ibnal Xattaab arda an takuna lana al axira wala wa dunia non Omar yow xanaa dama gërëmul ci la yàlla dogal na ñun ñoo moom àllaaxira waaye ñoom àddina moom mais seen soxna daal di cay yem mu ca yemee mu daal jaar ci ginnaaw dem jëndib lal ba mu jëndee lal ba nee na ñu fexe ba ràbbaka leen mu daal di koy yóbbu ci néegu Aïcha ndeysaan comme xam na mu mel ci Aïcha mu yóbbu ko bi daal di mu xeex ci néeg bi gis lal ba mu ne ko fa ruddi yaa Aïcha génnal lii delloo ko wallahi la law shi'tu la ajrallahu alayya jibaal al-dhahabi wal fidda mhm. maa ngi waat su ma neexoon يلا جخ اي مونتاني اولس اك خالص ورا ودك الجبال تسلمي ذهبين ها اسم واخ جوجو مو واخ نونو عائشه نك يلا ني سوما يلا جخ ما مونتاني اولس ورا montagne yi mos nañu sàkku ci moom moom yonent bi ana si farao oh, ayum na si mami وراودت جبال الشم من ذهب عن نفسه لوح فأراها أيها الشباب ويرسل مامي محمد وراودت الجبال الشم من ذهب عن نفسه فما له أيما سمى xoolal ñun ñii du fi montagne yi waxoon loolu nga nekk l'homme le plus riche au naa ne montagne urus moom bu ko jàll amoon hmm? ah. montagne yi na ko sànna bi ñaanal mu nokki urus ñaanal mu nekk urus nga ne sunu ñu nekk ci san moomeel waaye gis nga yonent bi dumeewul leen bopp dumeewul xoolu leen sax dégluwul leen waaye seen maamay Muhammad ndax xam ko waa kabat zuhda daruratahu inna darurata la tabi ala xool yonent bi ne ko yàlla nattoo woon ci ñàkk boobu daana dëpp cin waa këram di dëpp cin lu mel noonu taxaw ci kanamam waaye bu ñu fàttale wax Omar alaa tarda an takuna lana al axira wa lahum dunia nun addina moo nun addina la nuy alaxira la nu yàlla sédd waaye ñoom addina la leen yàlla sédd na ngeen xam ne man ci addina mu ngi mel ni ku wax rek di dem ba si sa garab taxaw daal di dal lu bari ka fa dem noonu lay bàyyi adduna maam yi ba sama may sam sa samaas mhm. sama may fadlul fadaay الرحمن وإليه شكرنا واي وكيف تكون في الدنيا ضرورة من لولا لم تخرجنا ndaxam yonent bi day ci li ko jiitu ndaxam amoon na aajo amoon na aajo ci alal waaye nag gis nga ko yàlla sange léeg-léeg xam nga nit ñi dañuy ñàkk ba naan ay man lu ma def yàlla ay man laa def yàlla waaye gis nga ñi yàlla sange aaja lu mu tar tar tar tar tar du leen tax a soppeeku asheytaanu yaidukum alfaqra wa yamurukum bilfahshaai walaw yaidukum mahfiratan minhu wa fadlan wala waasiun alim nee na seytaane da leen di ragalloo ñàkk ngir mën leen a def loolu bon agression yi ci dëkk bi rey yi ci dëkk bi dugg gaal dem xaru ngir alalu àdduna damul leneen lu dul alalu àdduna gàddaayu ñu ngir diine reyu ñu ngir diine ndax ñu ngi rey te kenn reyoo léegi kon yàlla dafa digle ku rey ñu rey la léegi toxaluñu ndigalali yàlla ñuy rey ngir lan xaalis Seydina Issa Seydou moom nga naan nul ne peut servir deux maîtres ou il aimera l'un et haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. vous nit ñi bo leen un bien mal qui ne profite jamais l'amour de l'argent est la racine du mal gis nga yonent bi ni mu dëddoo alal ba montagne taxaw nak ñaanal ñu nekk urus nga monno nga xamne do gis ak ñak waaye mu du moy lu leen bépp du moy lu sama may limaamu huwa lati tamma wa suuratahu ilahi moy muhammad eh sumay safa dunya diban barian nasami